tàmbalee ak loolu ak euh, la présidentielle bi nga xam ne amoon na le 24 mars dernier Khalifa Ababacar Sall taxawu Sénégal arrivé quatrième bu ma juumul euh, xëy na c'est un rang honorable bu fekkee ne vous étiez 19 euh, sur la ligne de départ mais pourcentage bi xëy na moom la ñeen ñi jàpp ne eggul fi ñu jàppoon ne Khalifa Sall egg na fa ak ñi mu àndal mel na yow la présidentielle ñu bëri wax nañ ci lu nekk mais vous à votre niveau qu'est-ce qui s'est passé waaw euh, ce qui s'est passé mooy que même les sénégalais se sont exprimés Mamadou Awa sénégalais yi ñoom moom seen seen cëggal guy ñoom ñoom moom seen choix et que am na fu ñu jaar fu nga xamante ne ñoom bëggoon sanctionner régime bi fi nekkoon je pense que li gën a feeñ ci résultat bi mooy volonté bi sénégalais yi amoon régler seen compte ak Macky Sall mm-hmm. et ils ont choix si ñi nga xamante ne pour ñoom ñoom ñoo incarner opposition bi jusqu'au bout résultat bi dëgg la du luñ doon xaar euh, ci sondage yi avant que président Ousmane Sonko di génn nous on était très bien on a duma ma la nëbb on a eu des moments difficiles mhm. surtout chaque fois bu ñu attaqué sur le plan de la communication campagne de diabolisation xalifa campagne de diabolisation Barth des fois on a été très bas dans les sondages mais lucidement calmement posture xalifa Sall yi chaque fois da doon monter et les gens ont trouvé nit ki ñu soxla woon ci mhm. calme bi ak proposition yi ñu doon def on espérait que au bout que daañu si loolu si endurance boobu par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis depuis l'emprisonnement de Khalifa la compagnon ak Yewwi ba élection yi mais malheureusement pour la première fois de l'histoire de notre élection présidentielle les deux candidats en tête ont polarisé quatre-vingt-dix pour cent mmh. c'était du jamais vu il restait rien pour les autres mmh. on n'a pas peut-être su exister c'est peut-être un échec de notre de on n'a pas su se faire entendre ou bien de ne pas nous donner raison toujours est-il que nañ seen président les élections se sont très bien passées et ñun li ñu buggoon mooy que on a toujours été convaincu qu'il fale sa battre pour le changement il fallait se battre pour la démocratie et démocratie mooy ñun la ñu waxoon biir PS fa PS mooy PS dafa am candidat tey bu ñu demee am alternance bi ñu am je pense que ñu sant yàlla parce que y a un changement il y nouvelle équipe ñu leen di ñaanal yàlla may leen ndam et li ñuy wax c'est sincère si ñun parce que Mamadou Awa man yàlla dafa dogal ni euh, depuis alternance ba léegi j'ai beaucoup voyagé mm-hmm. j'ai fait des pays différents dem naa rencontre printemps banque mondiale parce que man dama bokk réseau des parlementaires de la banque mondiale et de FMI quand boo demee lu mel noonu où il y a plusieurs nationalités qui arrivent plusieurs pays qui arrivent boo ne Sénégal nga rek leen njëkk wax mooy féliciter la mm-hmm. ci le peuple sénégalais seen seen sens politique courage ni nga gérer élection yi et puis la légende bi accompagner un peu ñi nekkoon prison. Hmm. génn fallu gagné au premier tour. boo demee bi ma demee mission Allemagne à Berlin c'est la même bi ma demee France ni la ko benn député mën médecin mën la ko waxee noonu la ko benn chauffeur Uber mën la ko wala benn réceptionniste hôtel. Hmm, hmm. ne la maanaam ñëpp ngi doon suivre Sénégal Sénégal macha allah adduna bi yëpp Sénégal la ñuy boobu. boo demee comment va benn Ivoirien dina la ne comment va le petit. Mm-hmm. parce que pour ñoom Diomaye le petit lañ koy woowee tu vois mm-hmm. Ousmane Sonko ils en parlent avec fierté wax et ça c'est c'est extraordinaire mm-hmm. euh, du question bañ a bokk ak ñoom mais seen ndam dafa am un retentissement extraordinaire partout dans le monde seen ndam la ndamu opposition bi la ndamu Sénégal la ndamu classe politique la surtout la capacité qu'on a d'organiser les élections élections boonte ne man jouru élection yi bon comme on sentait que le résultat n'y était pas man ci guddi gi dama génn pour pour ay vers une heure deux bi may génn ndar li ma sama bopp mooy mu ma doon dama lu ko fi jaroon mm-hmm. tey le 24 nit ñi yaa ngi dem ñëpp xam na ni ñii dañuy gagné mais ana nit ñi di ut xëri ñi nekk seen groupe les gens sont retournés à leur vie mm-hmm. et le lendemain le Sénégal est retourné à la normale c'est ça notre marqueur donc lu fi euh, moor yeeg xeex beeg xëccoo pendant parce que comme ni ma ko waxee victoire bi ñu am tamuñu droit à l'échec ñoom. adduna bi yëpp nga leen adduna bi yëpp ngawti ngawti maa ngi sànq benn député euh, panneau bu France Insoumise bi muy campagne dafa wax français yi. comme regardez ce qui s'est passé au Sénégal, comment le peuple a été dû. Si on se met ensemble, le Front national ne passera pas. a été Donc le Sénégal est devenu un exemple et c'est une obligation de réussite pour eux mais seen ndam ñoom mooy ndamu Sénégal boo xam dafay am pouvoir. Mhm. muy exercer pouvoir am. opposition buy opposé wu dans le cadre la.